dégg nañ la ndongo nga lancé ben message bu magamak à l'endroit des jeunes par rapport aux élection yi nga xamné ñu ngi ciy dugg gis nañu ay rappeurs on dirait pas engagés c'est des rappeurs comme vous ñi nga xamné ñom dañu jóg fas yéene sen seen xeexu par rapport ak régime bi mais ñu gis leen yeen ngeen dess gannaaw par rapport à lolu mais ngeen di lancer ay message ou sensibilisation ay message ou jam. tey est-ce que mën nga ci wat ci lolu c'est comme li wolof tam wax rek euh, bu ñëpp di waxandoo mën nañ bañ mën nañ bañ a mën quoi mais je pense que nous on a une démarche on a une démarche un peu je veux dire c'est une démarche sur la longévité et depuis longtemps on a prôné quand même pour euh, le respect des valeurs au Sénégal et surtout aussi pour le retour je veux dire des jeunes euh, en termes de de de, conscience pour que nous xam ne ëllëgu Sénégal ci bien vrai que le hip-hop a toujours joué un rôle avant-gardiste par rapport au gouvernement, par rapport aux autorités. Tout le monde sait que depuis l'avènement du hip-hop, il y a eu toujours des messages ça défend le peuple. On a assisté à une élection présidentielle, mais il y Dafa a une particularité. Moi, je ne comprends pas euh, personnellement, particularité, c'est quoi Est-ce que euh, Yankoy Dundu, comme Nimokoy Dundé, la particularité, c'est quoi pendant, euh, durant ces élections de 2012 Wow, c'est toujours un c'est toujours un, tournant très important pour euh, nous, les, euh, les Sénégalais. C'était pareil à l'époque où le PDS prenait encore le régime. Euh, au début de l'alternance, c'était pareil. on voit toujours que les rappeurs sont au devant de la scène. Pas de la scène politique, mais de la scène, de, la scène sociale. Pour surtout inciter la population à savoir que le droit de vote, c'est personnel. Le, droit de vote, c'est le droit à son destin. Et que qu'on se prenne en main. Et donc euh, là, on va aller encore, euh, on, va aller à, la course aux élections, à la course présidentielle. Et ce qui va simplement se décider, c'est euh, c'est le destin de tous les Sénégalais. Ce n'est pas une mince affaire. C'est très très important que qu'on choisisse un leader d'éthique, du respect des valeurs culturelles, sociales, et qui puisse en même temps essayer de, rétablir l'équilibre économique. Parce que le Sénégal est passé de pays euh, en voie de développement à pays émergent. Ça veut simplement dire qu'on est une graine, on est, on est, on est semé et ça pousse même pas. C'est ça le drame bëggoon naa ñu waxtaan tuuti ci musique engagée bi nga xam ne gis nañ ko ci ère 2000 bi sa la commencé ak ay mouvement yu bëri yi nga xam ne am na fi surtout dans le rap mais dafa mel ni euh, ci côté mbalax euh, feeñul feeñ boobu c'est parce que mbalax maan ni engagé wu ñu wala rappeurs yi ñoo gën a engagé yow lan nga ci wax. waaw boo koy xool dans le général dafay mel ne rappeurs yi ñoo gën a engagé wu parce que ñoom ñooy gën a dugg ci euh, ñaxtu askan wi di ci wax. Euh, bien vrai que am na ay mbalaxmaan yoo xamante ni euh, bari na ci ñoo xamante ni seen i dinani joy jooytul askan wi Dinani, wax problème de la vie donc euh, je vais pas hésiter de parler de du grand Youssou Ndour bari na ay texam yoo xamante ne mi ngi don wax kaw baykat yi mi ngi wax kaw immigré yi donc euh, donc euh, bo wesso Youssou Ndour aussi y a d'autres artistes comme Ismaël Lo y a d'autres artistes comme Baba Mal y a d'autres artistes comme suñu yenn suñu yenn mama yi aussi amna na ñoo dinañu wax donc je pense que li nga wax amna solo tay euh, ñun ñëpp war nañu gëna a dugg ci problème quotidien yi euh, de la vie pour gëna a gën ci wax pour défarat suñu monde bi. parce que on peut dire que notre monde devient de plus en plus compliqué difficile te je pense que ñun ñëpp. ñun ñun ñëpp di ay artistes lañ te ku ci né aussi am nga ci part de responsabilité dorénavant que ñi ngi lay talal micro ay ay jooni nit di la donc war nga ci profito euh, wax li nga xamantene dina dinañu jëri ñun ñëpp et puis dina participer luy défar monde bi tay élection 2012 yi nga xamné ñu ngi ñëw nit ñaa ngi koy gisé ci fond de tension tay ñu gis ni yeen ñi nga porteurs de voix ngeen amna lu au Sénégal en Afrique et un peu partout dans le monde quel est le message que ñu lancer face à la jeunesse par rapport à ces élections quel est le message que ñu lancer face à ces politiques par rapport à ces élections de 2012. Je ne sais wax Sénégal c'est un pays de droit Sénégal fu mu pays de ñu mais le may ñaan sénégalais ah dama bañ dal ñu toj di Eh, bëgguma deret tuuru Touré Kunda bëggul deret tuuru mais tamit sénégalais tamit moo mu war a dem woote ñun ma du ma gën a jaaxal ci gars yu ne war a nekk candidat man lu ma gën a métti à part suma musique bi bu ma neex mais problème Casamance parce que nguur bu ñëw du ci wax dara dina dinaa def te du def te Sénégal muy Dakar mooy capitale bi war nañu jàppale problème Casamance élection bi daal ñun Touré Kunda avec SOS Casamance. à tous les candidats. si c'est fait déjà. tous les candidats pour euh, oui si c'est euh, si c'est fait déjà et on demandera à tous ces candidats lui c'est un programme ndax problème pour trouver une solution définitive. Le peuple a dit marre surtout chez les jeunes, au-delà des mouvements, mais le peuple a dit que marre dund bi cher carburant bi cher na y a beaucoup de problèmes yi nga xamné sénégalais yi ñu koy jankontel tay euh, comment est-ce qu'il faudrait quelle est la stratégie ban baguette magique tay mo meuna peut-être changer euh, situation bi nga xamné tay sénégalais yi peut-être ñu koy dund. bah je pense que la question elle est elle est euh, je veux dire euh, euh, le mal le mal est le mal est déjà là tout le monde sait que politique bi arrangé wul arrangez ou la masse. Parce que tout simplement, il y a, une minorité qui profite de la politique actuelle. Tout le monde le sait. Et je pense que c'est une vision un peu générale euh, du monde, quoi. Parce que tout le monde sait que la plupart des richesses du monde, 100%, 5% ils ont richesse euh, ils sont livrés à eux-mêmes, ils ont des problèmes. Donc, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, il faut que euh, le système soit revu à la base. Il faut que quelqu'un connecte, quelqu'un connecte, un acteur de développement. que tu puisses faire une réflexion, que tu puisses avoir une démarche, comme nous avons une démarche de développement, mais moins une démarche, pas une, pas, une démarche qui est, qui est euh, supra-politique, parce que nous savons aujourd'hui, politique yi utilisée depuis des décennies c'est voué à l'échec tout le monde le sait tout le monde sait que voilà euh, aujourd'hui les gens pompent euh, dañuy pomper richesse yi ci le pouvoir pomper et yi da donc aujourd'hui nous au Sénégal quand les gens disent y en a marre je pense que c'est depuis la colonisation jusqu'à maintenant c'est le même problème qu'on a né, ban appel ngay lancé à la population sénégalaise ban appel ngay lancé aux autorités politiques au-delà de li nga jogé wax légui. vraiment wax laj nga ma question bu mu neex parce que dafa tomber ci suñu album bi ñuy génn ñu génne un morceau euh, xamante c'est ça parle de de la démocratie donc on a fait un, un morceau qui s'intitule hymne de la démocratie donc lolu yëpp dañu inspiré wu ci li nga xamante mo xew tay suñu Sénégal gi nga xamante askan yëpp ñu ngi tiit ci élection yi di ñëw je pense que on peut éviter le drame bu fekkente ni ñi nga xamante euh ñi ñu jité respecter nañu constitution bi limu wax je pense que problème mun na bañ a am te Sénégal man li ma leen di ñaan rek mooy suñu njiit yi nañu nañu nañu nañu sàmm suñu constitution ñu respecté ko fonk ko je pense que bu ñu bu ñu bu ñu bañee laal. imaginez nit bu ñew xol li la arranger, ci sa ci sa ci constitution bi nga dindi ko tek lolu je pense que suñu constitution nañu ma bal, mais fay nek comme euh, comme ben nu mu tuddati euh, papier hygiénique boo xamantene dañuy jël di changer nu mu la neexee te je pense que ku ku respecter sa askan respecter sa bàkku rew ku ne do nga di nga di nga bàyyi constitution parce que constitution dafa nek lu lu am solo ci rew li leen gëna a intéressé ci candidat yi moy ñu présenter un programme pour une durable et stable en Casamance. Si vous paix parce que Casamance vous a dundal Sénégal mais nous, nous négliger wala dañ pour rey waa Casamance te ñu bokk benn dëkk wala ñu bëgg Casamance genn Sénégal te Turekunda nanguwul loolu Turekunda dafa bëgg Casamance nekk ci biir Sénégal te bu war a nekk ci biir Sénégal sénégalais ñoo war a manifester depuis Dakar la capitale dëkk yeneen région yëpp benn bés ñëpp comme M23 yi ñuy def ni ñuy def ko affaire Casamance def ko soxla bu loolu bu amee liggéey dina am chômage dina wàññeeku lu bëri bëri bëri bëri.

mooy jàmm bi gaa yi télé réglé ñu regle ko te jàmm bi dafa ànd ak taalif dafa ànd ak loo xamante ni ñaani sëriñ si dañ ci war a bokk yàgg naa leen ko wax ñaari sëriñ si suñ ci bokkee ñu jël politique yi boole leen ci ba pare politique yi garantie sëriñ si ñaar ñaan ñaan bi ne li ñuy dox pour jàmm dina dellu si politique yi respecté ko mooy gouvernement yi suñ ko defee rek jàmm réglé c'est tout parce qu'en en fait sonal nañu fii patati patata gouvernement bi fii la la la loolu yëpp ay baal leen ma ngir yàlla ma wax leen ko euh, euh, puupi picc la puupi picc du dundal aujourd'hui il est question de solution il est question que le sénégalais de base mu xam lan mooy lan mooy wareefam mu xam lan mooy direction am xam ëllëg lan la mën a pour la génération future je veux dire changement bi ñuy du pour ñun je sais que yalla may nañu may nañu lu bare bare bare bare mais may bobu noonu ñun ñoo c'est c'est aux Sénégalais d'utiliser may bobu pour mën fi jëmbat lo xamné ëlëk suñu ay doom suñu ay sœur dinañ mën a fekkee njëriñ bi mais c'est euh, je veux dire des fois quand on le dit les gens pensent que c'est utopique mais euh, voilà c'est comme on dit en hein, li wolof di wax naan jege kiray la quoi xam nga jege kiray la les voiles sont là c'est-à-dire aujourd'hui les gens n'ont pas une vision, euh, une vision réaliste. On est trop euh, manipulé par les médias. Euh, les, Sénégalais sont trop faibles en termes de politique. On est trop faibles. On est, on est, on est manipulé facilement. Donc à un moment donné, il faut que le Sénégalais de base se rééduque. Il faut que le Sénégalais de base réfléchisse encore, revienne à des bases beaucoup plus intelligentes pour pouvoir prétendre à un Sénégal meilleur. Quoi. Je pense que nos gouvernements, j'espère qu'ils sont assez intelligents pour savoir, pour connaître les enjeux. Les enjeux sur le plan international que l'Afrique doit avoir. Je ne parle pas des enjeux politiques. Je parle des enjeux interrelationnels, diplomatiques, qui vont permettre à l'Afrique déjà d'être soudée. C'est, c'est vraiment c'est aberrant de voir qu'aujourd'hui encore, on nous divise encore pour mieux régner. Je croyais que c'était fini après la colonisation. Mais maintenant que le colonisateur est noir, à quand l'unité africaine Et euh, c'est une question que je pose à tous les présidents africains. Maintenant que Kadhafi n'est plus là, qu'est-ce qui va se passer koo ni gëm nga Sénégal gëm nga askanu Sénégal je pense que di nga respecter constitution bi respecter décision peuple bi. Mm. ñu bañ di di xëccoo nguur ak askan wi. Mm. nguur képp kuñ ko jox dañ la ko dénk bés bu askan wi décidé nañu la dénkatuñ la kon delloo ñu suñu nguur je pense que da nga koo a delloo ndax nguur gi euh, du nguuru kenn Sénégal Sénégal lu ñëpp la man loolu rek laay naan li may ñaan mooy nañu nañu indi jàmm jàmm nag li koy indi mooy nga sabab ko nga dox ko boo ko doxulee sabab loo ko jàmm du mun a am donc man maa ngi leen di ñaan mm-hmm. ñi ñi nekk ci nguur gi maa ngi ñaan les politiciens ñoom ñëpp nañu dox doxu jàmm pour Sénégal nekk ci jàmm su jàmm del Casamance Sénégal yëpp mooy naat su jàmm dellusee Casamance Sénégal mooy toog su jàmm si Casamance Sénégal mooy jàll bi tefes dem bële boor yëpp alors luy luy waral rek lan moo mun a def rek pour jàmm dellusi mooy ku nekk caabi boo mun a am te mu mun a ubbi bunt nga indi ko joxe ko teg ko ci table bi ñu ubbi bunt yi ja affaire bi foofu la ne.